jëwriñ internet bi nit nekk na fi mil jigéen nekk na fi millionnaire de sëy millionnaire de sëy moo dàqat sëy Ismaïla Yacine hmm. moo dàqat sëy Ismaïla Yacine loolu moom dañ ciy juum complètement am na droit côté bii lay waxee fii lay waxee pour ma wax leen gars yi ngeen dégg. war war def def nañ ko. weer wala ñaari weer wala ñetti weer kon kooku sëy moom tasul foofu ci kër ga. kenn xamul te sëy nekk fi. xamul bëgg xamul lu mu bañ xamul fu muy taxaw nga bàyyi ko mu nekk ci loo xam ne ay internet nekk ci ay affaire nekk ci ay ay ay ay jaay ay affaire adduna ak yu kenn xamul tës sëy nekk fi. lii. lii moo dama cee dàqur ak yow. nekk si ay internet nekk si ay jaay internet dañ la wax nii dafa am càggatu internet dañ la wax ni boo liggéey dangay ñàkk sa sëy amul amul sax n'existe pas am na droit sëy di nekk si internet bi am na droit sëy di way am na droit ñaar yooyu yëpp am na droit bi yàqul dara si sëyam yàqul dara dara dara si sëy bi internet dëgg la temps la parce que di nga gis ni waa Sugar ni yi nekk ak ak ak Jessica ak xale jigéen ñi dañuy njaboot gaa ngi ci biir kër gi ñuy jaay seeni jaay en ligne te dara yàqul leen seen biir sëy am na si ñoo xamante ni bàyyi nañoo liggéey ñu ngi ci Sugar bi di jaay en ligne seeni parfum ñii di jaay xeesal ñoom Kumba Jaay ñoom ñoom Myriam euh, ñoom Mame Ndiaye Savon ñoom euh, Jojo euh, Close ah yaakaar naa ñooñu laa xam ne ñoo am boroom kër mais ñooñu ñu ngi sëy di jaay seen i jaay te yàqul leen dara dara leen yàqul seen sëy kon am na droit moom mu ko copte ni dafa war a jaay en ligne mu jaay en ligne am na droit mu santine ne woykat la te woykat moo ko mën a dundal mu dugg si woy bi internet jëwriñ ku la wax ne mu ngi yàq yàqul lu bëri li muy defar bëri na parce que am na ñu bëri am na lu bëri ñi si nekk ay millionnaire li jaay ay millions internet moo leen ko jox ñu continuer. set am tas nga fa ñaari yoon te boo dem tas bu ne ni fa def weer wala ñaari weer wala kon kooku sëy moom tasul foofu ci kër ga ñëw taxaw ci internet bi yow kañ soo bëggee benn affaire nga ni da bëgg liberté d'accord na nga doxee te nga def soo am waaye bul yàq ay gor ñi ay gor lañ lu ñu war a def def nañ ko wallahi lu ñu war a def def nañ ko ñii defal nañ ko lépp ñii defal nañ ko lépp yëkkati nañ ko fépp Mary Diop bi nga xam ne dafa bëgg lu rafet am na benn xaw ma lan moo jotoon même doomu bàjj na moom bi mu ñëwee bi muy dem dafa yëgal xaw ma ay jaaroo mooy na ne ko soo demee nga jox am ci sa jaam la pour lépp lu mën si rafetal pour wax la rek mi ngi koy def Mary Diop mooy yaayu Mario mooy yaayu Mario mais est-ce que kooku mérito na lii nga ko sosal ci àdduna bi yëpp est-ce que kooku war nga wax ba xolam jeex hmm. xam tax mérito ko Marie Diop mi yaay Marie ma mooy yaakaar naa mooy yaay Mario am tax mérité wul lii di ko ndaxte di waxal ndaxte taxaw na ci kanam saaga ko boo ma jegee dinaa butti sa ndey yor paaka mu jël la nànk ngeen di xuloo mu jël la nànk yéegal la ci kaw ne la kañ dem tëddi bu ko faale ki dafa soof dégg nga nga taxaw ci kanamu yaayam nga ne ko boo ma jege dinaa butti sa ndey ak paaka bi yaay ji di dégg mu xëcc la nànk nee la kañ ngeeg ci kaw kañ dem tëdd yi bu ko faale ki dafa soof bul fa bul fanaan fii tey xanaa kook mu bëgg defar xanaa kook ma bëgg defar sëy ba parewul nga def prank nga saaga ndeyam ba mu tooy nga def prank nga saaga ndayam ba mu tooy yaa ji déggul gisul encore mën la sama doom nga man bëgguma Mario yow laa bëgg xanaa kooku tamit mérito wu la ñaari doomu réew yi nga ko sosal ci àdduna bi yëpp mm-hmm. est kooku war nga wax ba xolam jeex est loolu yoon la mm-hmm. dafa am loo xam ne logique la mm-hmm. ah yéen ñi naan ñëpp ay ndaxte ku ci ndaxte taxawoon ak ku ci ku sa belle taxaw ak sa ak sa ak yaay sa taxaw mu saaga sa nga songu nga songu ko nga songu sa borom kër nga songu sa sa euh, dire nga songu sa belle sa jabar mag ku si sa belle-sœur saaga sa yaay sa yaay di taxaw nga songu ko wala nga dem wuti lamset waaye arrêté leen naa fekk waay. am loo xam ni mooy loolu quoi. d' accord donc man su ma la déggee ci commencement ba fin. Hmm. Euh, ndax jàppoo ni tamit euh, ndax dañ ko manipuler comme li nga wax xale la euh, dafa am ñu ne ci ginnaawam bañ sëy bi. loolu moom am na ci ndaxte pour man sama xalaat ñi koy tas doo ñu ëpp ju koy jàppale ñu koy tasoo moo ëpp ñu koy jàppale. te li tax mu wax la loolu mooy benn jour dañoo toog ñu réglé mooy bi ma naan dañu ànd papa yi euh, Mario wax nañ ñun xam nga bi ñuy ñëwaat lan lañ doon wax. pour jàpp jour bi mu war a gën këram. nekkatee booba mu ngi togg lii muy togg nii xaw ma affaire euh, nu mu tudd affaire kii bi. mooy clipam bii muy def. Mm-hmm. musigam bi nekk de booba moom mi ngi programmé li mu programmé xamu ni lépp jaayu ko dara loolu àdduna la jaayee affaire bi yow bëgg nga def sa promotion bëgg ngaa def sa sa say affaire yu caaxaan yi parce que li tax ma tuddee ko affaire ci sëy yow lii ngay wax nii tey di nga def yëpp sa jëkkër pare woon na li yëpp préparé woon na ko. Mm-hmm. paa bi encore bu dee fii da nga fay waxaat affaire yu caaxaan bu dee way la du affaire caaxaan de. Hmm. waaye du affaire caaxaan Beyoncé ak Ria Beyoncé gi nii ak Jay-Z <laughs> ñooy woykat yu ëpp xaalis États-Unis <laughs> boo boolee seeni fortune boo boolee seeni fortune rek waxatuma ko mais jamono ji nu du affaire u caaxaan de way du affaire u caaxaan Youssou Ndour a ngi nii entreprise ay entreprise la ci tijji way du ay caaxaan de entreprise la entreprise la bu dee affaire du caaxaan si foofu nga ko bëgg a waxee waaye du ay caaxaan bu dee affaire du caaxaan tam si jaay ay site internet si jaay en ligne nga nekk du affaire du caaxaan de vente en ligne vente en ligne bokk na li gën a dox si àdduna bi jamono ji toll vente en ligne na si li gën a dox si àdduna bi du affaire du caaxaan foofu ma rectifier la fa. na ko ba pare léppam yëfu boppam laa lay wax de lii ma lay wax nii yëfu boppam may la jëkkër ji amul addunaam yëpp moom ndaw si loolu coow li coow li nii yëpp xam nga maa ngi lay benn boo xam ne taxaw ma si taxaw mooy bi ma naan euh, affaire génn bi ak yu demee noonu xam maa ngi lay wax ne la. ngoone ngoone je suis obligé je suis obligé euh, séduire la parce que bopp mère bi nga def nii je suis séduire la dégg sama xarit damay je suis obligé. génn guddee moom mi moo ci dugal mooy ndaxu si parce que boobu ay groupe lay àndal mu téye leen ñoom ñëpp gère may la tey maaj su ñëwee sama dañu dem dibitari suñuy añ day commandé dara ne lii buur kii la nu mu tudd am na nu koy am na benn tur bu mu koy defee. Hmm. laxas pour yóbbaale waaw kuy def loolu di nga bàyyi sa sa jabar ci dara. Hmm. naan ay da ngay dem bay ñàkk crédit waaw. loolu la wax noonu. waaw man dégg naa mu ne ba ñàkk crédit. Magal Touba dama doon daje dañ doon gis nii may sàmbala fekk boobu béguma waaye yow moom musul bég moom nit koo xam ne day loo ko gën a defal muy gën a mer man wax naa ko eh Kisia liberté boobu xëy na liberté nag bi mu tàmmoon c'est vrai loolu xëy na loolu bloqué na ko parce que man dama ko xam loolu mun naa ne bloqué na ko. mooy liberté boobu maanaam fu ñu la fekk nga nekk ci non sa waay ñun ay kër lañ yor ñun dafa am ñuy dundee mooy kër gi règlement la mooy que ni da tëdd heure. yow dem liggéeyi def li ngay def nekk ci li ngay ne fekkee jigéen nga nekk ci li nga war a ne ku ne nekk ci li nga war ne waaye liberté boobu pour mën a dem def sa clip pour mën a dem wax yi pour mën a dem say xarit pour mun a génn ba 23 heures no en tant que jigéen bu am jëkkër kenn xamu ko dañuy dem ba. waaw léegi loolu nag da ngeen ko waroon parce que Mario. xam na ne ku muy génnal xam na ku mu takk artiste la am na droit tourner clip ba ba six heures de xam nga loolu nijaay Mario xaaral ma simmi yow yow tamit xaaral ma wax la fii tamit parce que nag yaa ngi bun yaa ngi bëgg a bonol yaa ngi bëggal bonol nag way xaw ma nag ibaadu nga xam ma nag ibaadu nga xam ma nag ban ban lan nga bokk dam ngeen baal ma yéen ibaadu yi yaa ngi bëgg a nag dafa am loo xamante ne nag viem la viem la aar bonul ñi ci aar ñoo bon aar ñi ci aar bon ndaxte am na droit tourné déglu leen wax leen lii clip ban heure a jot 19 heures 18 19 heures ba 7 ci suba si ngoos ba 7 ci suba dégg ngeen wala ndaxte am na droit bu bëggee tourner clip nekk ci biir sëy am na droit bi tourner clip 7 heures suba maanaam 19 heures ba 7 heures suba 12 heures temps am na droit bi laaj leen mu lu tax laaj leen mu lu tax. dafa am loo xamante ne dafa jiitu loolu tam Mario da ko xam xam na ne kii artiste la te may ma may leen benn artiste yu bari bu ñuy tourné clip seen jëkkër yi taxaw artiste yu bari bu ñuy tourné clip seen i jëkkër yi ngi taxaw loolu moom maa leen ko wax barki yeneen bi laa la ni artistes yu baree baree baree baree bari bu ñuy tourner clip seeni jëkkër nga taxaw seeni jabar nga taxaw Wally Seck moom moo ci rawati Wally Seck moom kilibam yépp soxna ay dara fa taxaw Wally moo rawati moom kilibam yépp soxnaa ngi taxaw toog jël saysam di seetaan jëkkëram aar du lu bon Viviane boobu sax mën nañ ko wax nii Bouba Ndour moo nekkoon producteur am mais avant Viviane di di sëy ak Bouba Ndour yëpp Bouba da ko daan fekke Bouba entre copain copine la entre copain copine way bonul nit ñi nekk ci way ñoom ñenn ñoo ñoo xamul lan mooy way ñi ñi nekk di sëy ñoo xamul lan mooy aar mais way bonul de yaa ngi ko bëgg a de jigéen gi way dafa dafa war a sëy loolu amul fenn de jigéen guy sëy warul def ay clip loolu amul fenn de loolu sax waroo ko wax sax sëñ bi ah, waroo wax loolu non attaque jigéen bu am jëkkër kenn xamu ko dañuy dem ba dootuñu xam yow ci lan nga nekk ah, ni ñuy dundee mooy kër gi règlement la mooy que ni da ngay tëdd heure yow dem liggéeyi def li ngay def nekk ci li ngay ne fekkee jigéen nga nekk ci li nga war a ne ku ne nekk ci li war a ne waaye liberté boobu pour mën a dem def sa clip pour mën a dem waxi pour mën a dem say xarit pour mën a génn ba 23 heures non en tant que jigéen bu am jëkkër kenn xamu ko. dañuy dem ba dootuñu xam yow si lan nga nekk. moom ban man man li may gën a métti mooy moom ban coono la am ban coono la dund boo xam ni ki tey mooy waral mu ne dafa am lu fa daj yow oto ngay oto buñ climatisé moom ngay jàngee. ah oto bi climatisé ngay jàng jee yow sa néeg sa salon climatisé la non nañu wax dëgg yow toggoo yekkoo balewu photo faberoo mais lan mooy problème bi ba pare toog sosal góor yoo xam ne tey am na loo xam su ko yàlla bàyyi sax yàlla wallaay su ko bàyyi sax yàlla du ko seetaan waaw. d' accord léegi euh, su ma ñëwee ci clip bi. ñu dégg ci ay kàddu yoo xamante ne nii. Euh, ñu bari ni est-ce que du lim dund ci kër gi la wax xaw ma nit ku ñuy tël euh, te deewagoo par rapport ak loolu yow soo ma ko doon analyser ndax jàppoon ni lam dund ci kër gi la doon wax ci clip bi. waaw xam nga loolu man mii jëkkëram woon na ma ci bi ma ci wooyee xam nga mooy li ma lay wax sànq rek ne la Pape Mario lu neex ndaxte neex na ko. bi mu benn bi mu toogee di ci wax dafa maaj pourtant garaawul de ay yi muy demee mu ne ko papa man yaay sama kilifa mais moom maay kilifaam même fekkee dafa bëgg dara mun na naxanteeg man ba nangu maa jël oto bi def si tracker yooyu nga xam ne fu bi ne na koy xam. mu ko toppee ba topp ko léegi moom day fekkante ay giwin. moom moom ndaxte. dégg fii dégg ma téléphone. bi mu ko mu ne ko papa man sama kilifa mais moom maay kilifaam même fekkee dafa bëgg dara. mun na naxanteeg man ba ma nangu mais du ko forcé maa jël oto bi. dëgg leen fi xam ne fu bi ne na maanaam GPS la ci def maaj mooy Mario Mbaye dafa jël oto ndaxte bi mu ko jëndal def ci GPS parce que ndaxte bu ne bu tàggoo jàngi day guddee wàcc un jour mu jël GPS dugal ko ci oto bi pour xool ndaxte fana fan lay jaar loolu lay nettalee nii. ay diwin. moom moom ndaxte. dégg nga na. mu woo ma téléphone. bi ma woowee ma ne ko maa ngi dégg seen coow yooyu mais li taxal maaj mu ne non parce que tons mu ko topp dafa fréquenté day ànd ak ay giwin ma ko ay giwin ba moom du ci loolu ma ne ko ba du ci loolu mu ne non. Mario Mbaye dafa wax nijaay ji. ne ko dama dugal GPS ci oto bi mais un ma am fi ma ko fekk fi ma ko fekk ñooñu ay giwin la léegi nijaay ji ne ko mun ne ko yow ma euh, Mario lay wax ni xaaral ñu dem dégluwaat leen. bi mu ko toppee ba topp ko. waaw mu léegi moom day fekkante ay giwin. moom moom ndaxte. Mm-hmm. mu woo ma téléphone. bi ma wooyee ma ne ko maa ngi dégg seen coow yooyu mais li taxul maaj mu ne non parce que tons mu ko topp dafa fréquenté day ànd ak ay giwin. dégg ngeen ma ne ko ba du ci loolu ma ne ko ba du ci mu ne non moom maaj toujours da koy da koy da koy moom du ci loolu mais ànd bi ànd ak ñoom moo neexul. dégg ngeen mu ne nijaay ji dama def GPS oto ma topp ko ma gis ne ay giwin lay fréquenté. mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko am ah, mais moom laalewu ci takkewu ci mu ni ndaxte moom laalewu ci takkewu ci moom du gwin loolu la ko Mario seedal ci kanam ni jaay moom maj moom du ma la nëpp tout le temps nee naa la da ngay défendre da ngay protéger ndaw ci xam na loolu donc loolu la waraloon moo tëj bi moo waral mais ànd bi ànd ak ñoom moo ma neexul dëgg la dëgg la ay jiwin maa ngi dégg seen coow yooyu mais li taxal maaj mënoon na parce que tons mu ko topp dafa fréquenté day ànd ak ay giwin ma ne ko ay giwin ba moom du loolu ma ne ko ba du ci loolu mu ne non moom maaj toujours da koy da da koy protégé mu ne loolu mais ànd bi ànd ak moo ma moom mm-hmm. maaj moom tout le temps nee naa la da koy défendre da koy ci mm-hmm. xam na loolu. donc loolu la war waraloon moo tëj bi. moo waral moo tëj bi nit nag da ñëw fekk ay xale te kër gi mu nekk ay xale yu ndaw fa ne dafa am loo xam ne luñ fa loon nangu kenn ko nangu foofu jigéen daa am heure waaye fu fanaane fu la neex yendu loolu du am. te nekk ci néegu sëy. waaw te nekk sa déegu sëy loolu du am jox la oto bàyyi la. paa bi fi mu bëgg a waxee. fii d'accord ma ci paa parce que jëkkëram Mario mbay nee na jabar ji da leen di fréquenté mais moom du gwin mais yaa ngi wax lu ma yaa ngi wax lu ma neexul mooy kër gi ay xale ngi fi ne mais yaa ngi bëgg a wax ni moom buggoo ñuy influencé giwin di di influencé di influencé waa famille bi wax ji mu baaxul yow jëkkëram mu ngi koy yu tuuma yow yaa ngi bëgg a teg tuuma ndaxte fii neexuma lii moom neexum neexum